ixwaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di jéggalu ci tardement bi ajul suñu coobare huit heures lañ jóg mais xam ngeen ne jamono bi dafa xaw a xat ndax tabaski bi ndax tali bi dafa xaw a xat mais huit heures lañ génn kër ga ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo yónni yonent yi ci ay lay yu leer ak njub lan moo tax yàlla yónni yonent yi jox leen ay lay yu leer ak njub pour mu génne nit ñi ci ay lëndëm pour ñoom yonent yi ñu génne nit ñi ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer waaye ñu jubal nit ñi ci yoonu yàlla mi nga xam ne moom mooy al aziz al hamid yàlla na xéewalu yàlla subhaanahu wa taala ak jàmmam nekk ci ngën gi yonent ki gën a tedd ci wootekat yi muy seyduna muhammad moom mi nga xam ne moom la yàlla tëjee yonent yi amul yonent buy ñëw ginnaawam ku ne yonent ñëw na ginnaaw muhammad wax nga li ci ginnaaw dëgg ndax moom moo ne yonent du ñëw sama ginnaaw yàlla moo ko kaste beneen yonent du ñëw ginnaaw muhammad moom yàlla fa jaala siratahu qudwatan li kulli mu'min yàlla def histoire biographie muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk royuwaay ci bépp jullit ci mboolem dund jullit mu mun toppandoo muhammad bi mu nekkee ndaw ba ba muy dee ba ba muy mag ba ba muy dee di génn àdduna muhammad nekk royuwaay ci ci wàll ci wat ci côté ci côté bu nekk moo xam ci mbiram yu ndaw la moo xam ci mbiram yu mag la yépp muhammad doy ko ci royuwaay moom jullit boobule yàlla tëje diine muhammad sharia yi amul beneen sharia buy ñëw ginnaaw diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla def diine muhammad yonent gi mu ko yónni nekk akmalul risalaat mu gën a mot ci mbooleem yonent yi yàlla yónni woon muhammad moo gën a mat le moo ci gën a baaxle ci mbooleem mbir yi nga xam ne nit ñi dinañ ko aajowoo ci seen yu biir ak seen yu biti yal na jàmm yàlla subhaanahu wa taala nekk ci yonent boobu ak sahaaba yi ñi nga xam ne dañoo juboon te baax ñi nga xam ne yàlla moo natt woon xeet wi gis ne ñoom ñoo ci gën a baaxi dënn mu boole leen ak xayru xalqillah muy muhammad mbokk yi ci yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaan yàlla mu boole sunuy xol ci bëgg yonent boobule ak topp kontante yonent boobule ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal nu tawfiix ak sellal ci wax ak jëf mu may ñu ngëm gu mat ak yaqiin ndax moom yàlla innahu samiun mujibu du'a ayyuha al ixwa al afadil yéen mbokk yi tedd yi ngoonuk tey gi waxtu yi nga xam ne moom lañ fiy def ñu jéem suñu kemtalaayal kàttan jéem a waxtaanee jant bi nga xam ne moo ne fang te tàngaayam du la kay jant bi nga xam ne bëccëgam fenk na fu ne ba dara mënu koo muur amul lenn lu mën a muur jant boobule ay niir mënuñu koo muur lenn luñ teg ci kaw mënu la làq jant boobu su fekkoon ne nit bëgg naa fay leer googule wala mu ne day muur lumière boobu di jolli wala mu ne da koy ëf ak làmmiñam pour mu fay wala mu indi yeneeni mbir bu ko cee teg pour mu fay waa jooju ay mbaggam dana toog ay faaram damm ay njëndax itam ne bàcc ñu yoonu ko suuli leer googu des di jolli leer googu nag du jant ba ci kaw asamaan waaye jant bi ne woon fàng ci suuf doon ànd ak ñun di dox la woon muy muhammad innaha samsu nubuwa samsu risala samsul hidaaya wal irfan jantug yonent la woon yàlla yónni ko mu nekk jantug njub mu nekkoon leer buy melax nekk benn làmp bu leer naññ yàlla soppee ci moom texe di dund gi daldi teg ci loxoom ak texe moom yàlla sax mu garanti ko assuré ko ne gaa yi bëgg a fay leeram dara lañ mënul ci moom yuriduna li yutfiu nuurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuur walaw kariha alkafirun huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alhaq li yuzhirahu ala diini kulli walaw kariha almushrikun yàlla mu ne am na ñoo xam ne ñu ngi ne siiw ñu ngi njeeju fay leeru yàlla ak seeni làmmiñ yëguñu ne yàlla moom leer googu ku koy mottali la ak jolleem donte yéeféer yi bañ nañ li yàlla bëgg moom mooy mooy am ndax moom yàlla moo yónni yonent bi moo yónni yonent yi ci njub ak diine dëgg pour mu folli mbooleem diine bu fi nekkoon pour diine Muhammad ñëw folli ko donte mushrikuuna yi bokkalekat yi bañ nañ loolu yàlla moo ko assuré ne day am kon ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo yónni yonant boobule benn bis yonant bi moo doon nettali pour ñuy wax ne yonant bi du moroomu gaañi raw na leen bu yàgg mu ne baynama ana naim zaata yawm iz ataani jibril wa mikail fil manaam ne benn bis dama nelawoon man yonent bi ci nelaw jibril daal may dikkal ak mikaayil ci ay nelaw fa qaala jibril yaa mikaayil zin muhammada jibril daal di jox ndigal mikaayil ne ko peeseel muhammad fa wazanani bi ashara min al bashar fa rajaxtu bihim mu ne mu jël fukki nit teg ci benn plateau jël muhammad teg ci benn plateau mu ne fa rajaxtu bihim ma ëpp leen ma gën leen a diis fa qaala jibril daal di koy delloowaat ne ko zinhu bi mi a peeseel muhammad ak téeméeri góor fa wazanani bi mi a min al bashar fa rajaxtu bihim mu jël téeméeri góor teg ci benn plateau jël muhammad teg ci benn plateau muhammad ne na farajaxtu bihim ma gën leen a diis fa qaala ya mikail zinhu bi alf peese ko ci junni nit fa wasane ni bi alf farajaxtu bihim mu jël junni nit teg leen ci plateau jël ma teg ci benn beneen plateau bi muhammad ne na ma gën leen a diis ma ëpp leen poids fa qaala jibril wallazi baasahu bilxaq law wazannaahu bi ahli samaai wal ard jamian la rajaxu bihim muhammada wallahi boo jëloon waa asmaan yëpp ak waa suuf peese leen muhammad dana leen ëpp poids ci yàlla kon muhammad du moroomu gaa yi ndax moom mooy muhammad al yatim alladi baasa al amala ila qulubil yaisin adduna bi bi ñu demee ba amatuñu yaakaar muhammad moo delloo si waat yaakaar bi ne nit mën na fi dund ba génn àdduna dund ci àdduna am kontaante yàlla mu dee yàlla dugal ko aljanna muhammad moo delloo siwaat yaakaar boobu le waa àdduna bi ñàkkee yaakaar ci seen àdduna muhammad moo leen delloowaat confiance muhammad al ummi allazi allama al mutaallimin mooy ki jàngul te ku jàng muhammad la jàngal te kenn jàngulu ban univers ban université la muhammad génn kan moo doon professeur ñan ñoo ko doon formé kenn jàngalu jàngawul benn école te moo raw ñu jàng ñëpp muhammad alfaqir alladi qaada safinata alaalam alhair ila muhitillahi rabbil alamin mooy ki ñàkk ki nga xam ne moo joow gaalu àdduna bi gaal gu gëlëm gi moo ko joow teeral ko ba ci kanam borom asamaan ak suuf indaale mbindeef yépp te ba mu koy def ku ñàkk la woon amul woon dërëm muhammad daana toog weer cin du tàkk këram ñaar lay dundee ñaari ñuul yi mooy ndox ak tàndarma looloo tax benn bis omar ibnul xataab doxantu ba ci bàmmeelu mustapha fi ñu ko denc fa qaala asalaamu aleyka ya rasulallah yaa man qarana allahu taatahu bi taati wa qaala man yuti rasul faqad ata allah omar doxantu ba ci bàmmeelu yonent bi daa di koy nuyu ne ko yàlla na jàmm nekk ci yow yow mi nga xam ne yàllaa tollale yàllaa lënkale ne ku la topp topp na yàlla mu ne man yuti rasul faqad ata allah ku topp yàlla ku topp yonent rek topp nga yàlla assalaamu aleyka ya rasulallah yowma yandamul usaatu ala isyaanika yowma alqiyaama yowma yuqallabu wujuhum fi nnaar yaquluna ya laytana ataana allaha wa ataana rasul yàlla na jàmm nekk ci yow yow mi nga xam ne bis bi nit ñi di réccu bis bu mbindee fi di réccu di màtt seen ñaari loxo naan cëy suñu xamoon ñu topp yoonu yonent bi allahu akbar ndeke mbokk yi benn jour mu ngi ñëw ñun ñi nga xam ne dañoo tànn yeneen yoon yu safaanoog yoonu Seydina Muhammad bis mi ngi ñëw suñu kanam fii soriwul dana màtt suñu ñaari loxo lan la ñuy rëccu lan la ñuy mébét bis boobu aka neexoon tey ñu ànd ak yonent bi mu jiitu ñu topp ci ginnaaw te loolu soriwul de léegi mu ngi ni suñu kanam ku xëy rek yenn ji ku gontu fanaani ay fan yu néew a ngi ñëw nga dugg biir bàmmeel ñu ñëw ne la maada taqu kunta taqul ala hada al abdu muhammada loo doon wax ci muhammad wallahi boo tontuwul man ak yow ci bokk yam bu ñu tontuwul bu ñu tontuwul laaj boobule te foofu lu garaaw la fa yàlla di doxale yàlla du bàyyi day mbindee fi alaxira yàlla day joué yàlla day compté benn bis yoon daf toog di wax àllaaxira Omar ne ko ndax dañ ñuy dellowaat suñu xel yi comme nii ñu tooge tey mu ne wallaay dañ leen dellowaat seen xel Omar ne man kon du ma tiit waaye àllaaxira yàlla day joué parce que doomu aadama muus na muus goo xam ne bu yàlla bokkul mën naa foofu bëgg a tontu ji fële waaye fële bu ñu laajee fekk daawoo ko woon dund yàlla nee na man maay ñëw ak sama mbir daal lay réeral ñu ne yàlla lu tax mu ne waye dillullahu zalimin maay réeral band yi lu tax mu ne wa yafalu llahu ma yacha maay def lu ma neex wa yafalu llahu ma yacha bu fekkee ñi gëmoon yàlla la mu ne yusabitu llahu allazina amanu bi qawli saabit maay dëgëral seen làmmiñ ñi lànkoon mu ne wa yadillu llahu zalimin ma tarxiis loo leen maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada la la adri la adri ñu ne la laa darayta wala talayta mu ne ko yàlla na jàmm nekk ci yow yow mi nga xam ne bés bi gaa yi bu ñuy wëlbati ay kanam ci safara di lakk ay nit seen kanam yi la ñuy lakk ci safara ñooñu ñuy lakk seen kanam da nga dëgg ñuy réccu naan yaa laytana ay waay ñun aka neexoon ñun ataana allah ñu topp yàlla wa ataana rasul ñu topp yonent mu ne ko assalaamu aleyka yàlla na jàmm nekk ci yow yaa rasulallah yow yonent yàlla bi yaa man kunta taxtubu naa ala jizi naxla fa lamma sananaaka minbar wa faaraqa aljiz annaxla wa faaraqta jiz annaxla samina li jizin aninun ka aninul ummi allati zubiha waxiduha fi hijriha yàlla na jàmm nekk ci yow yow mi nga xam ne doon nga ñu xutbaal ngay teg sa loxo ci benn ëkk tàndarma gu dee da ngeen di gis yenn saa yi juma ci yenn juma yi ilimaan buy xutba mu yor benn yat taxaw nii yor yat bi yonent saa saa bu daan xutba day jël loxoom teg ko ci benn ëkk tàndarma gu dee loolu la ñuy toppandoo noonu yonent da ka daan teg ci loxoom bi ñu tourné xibla bi wala ñuy julli masjidul aqsa ñuy julli makkatal mukarrama xibla bi daal di changé ñu tourné xibla bi ñu daal di fay bàyyi ëkk gi vendredi bi jot yonante taxaw ñu dégg ëkk gi di jooy mel ne yaay ju ñu rendi liiram ci kawam ëkk gi di onk di sab lu tax ndax li ko muhammad tegul loxoom nit nit koo xam ne dafa am doomam benn doom rek mu nekk liir tooy xet ñu jàpp ko di ko rend ci sa kanam noonu nga amee lu metti noonu la ëkk gi amee lu ko metti bay sab bis boobule Omar ne yonent bi bu fekkee ëkk gi moom nga tegul loxo muy jooy ndax tàqalikoo gi nga tàqalikoog moom ya rasulallah fa kayfa bina wa qad faaraqtana ya rasulallah kon ñun nit ñi nga xam ne ay mbindeef lañu yow mi nga xam ne tàqalikoo ngoog ñun yaa nga barzaq ñun ñu ngi fi àdduna kon ñun ñi nga xam ne ay nit la ñoon doon dund ak yow kon ñun ñun na lan war a def mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala suñu kemtalaayal kàttan li nu fas yéene waxtaan ak yéen mooy siiratul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mooy lenn rek ci biographie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du wax ne mais guddi gi yëpp dañuy waxtaan ci dund yonent mais dañuy jël lenn loo xamante ne daf ñuy wan rek moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du mel ni moom. ña dem alaaxira ku mel ne yonant bi fekkunu ko fa ñi fi des fii ci àdduna ku mel ne Muhammad dootu leen fekk si te biographie moom yonant innaha asaxu siira li taarixi nabiyin mursal mboolem yonant yi ku mu mën a doon yonant moo la gën a wér histoire aw azimin muslih wala nga nekkoon benn ngand boo xam ne da nga fi jaaroon pour defar àdduna yonent moo la gën a wér histoire lu tax ndax histoire am dafa yegsi ci ñun ba mu nekkagul moom yonent ci ay mamaatam la gaa yi tàmbali di càmbar ba moom yonent bi mu nekk waaye bàyyiwuñ ko ñuy càmbar dund yonent ba ba mu génn àdduna bàyyiwuñ lenn gaa yi dem nañ sax ba wax kawar yi bopp yi ñaata la bijjaaw yi nekkoon ci bopp yi sax gaa yi xam nañ ñaata la benn saxaaba topp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di faj aajoom mu yëg ci kawe fu kawe yonent toog sëgg toog nii rek jékki-jékki sëgg gis waa ji waxu ko dara yonent faj aajoom ba pare daal di daal di ne waaw bi bi muy dem fekk waa ji moo ko daan yoral ndox te bu daan génn fa mu ko daan yoral benn mbuusu ndox bi mu faje aajoom ba pare mu ne waaye waa ji waaw li nga doon def moom loo ma doon yërndoo waa ji ne ko damaa bëggoon gis ni nga toogee ma jàngal jullit ñi nañ toogee noonu balaa ñuy wuteeg yow kon bàyyiwuñ dara lépp la gaa yi càmbar moo tax moom yonent innahu asaxu siira li nabiyi mursal mboolem yonent bu yàlla yónni yonent moo la gën a wér histoire mboolem ngand yi fi jaaroon bëggoon defar adduna bëggoon defar doomu aadama yi moo xam ci li yàlla bëgg lañ ko bëggoon teg moo xam ci seen i bànneex lañ bëggoon teg doomu aadama yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raw na leen comme ni ñu ko fas yéene gisee sunu kanam léegi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ñuy fekkee mu gën a mat bu baax a baax ci ay textes yoo xam ne nekk na mutawaatir lu ëpp nga gis benn mbir moo xam ne lu mat juróom-ñaar fukki nit ñoo koy nettali ndoo ci histoire yonent sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu day wane ne lu wér këng la ñaareel bi mooy inna xayaata rasul sallallahu alayhi wa sallam waadiha kullul wuduux fi jamii marahiliha histoire yonent dafa leer naññ leer gu mel ne jantu njolloor ci mboolem étape yépp nag depuis ca wéy juróom bu góor ba ci woy juróom bu jigéen ba niñ ko denc ci biir ba moom yonant nu mu juddoo ni mu nàmpee ni mu màggee mboolem mbir yi ba yàlla di ko yónni ba yonentam fu mu yem bàyyiwuñ ci lenn lépp la gaa yi càmbar jàngal na ko pour yonent bi loolu day wane ne moom dong moom mooy royukaay bu mat bi mboolem mbir yonent bi xam nañ ko xam nañ ni mu juddoo xam nañ nekku xaleem xam nañ agoo xam mbaaneem xam nañ sax balaa yàlla di ko yónni nu mu doon liggéeyee mbooleem tukkeem yi biir biti màkka xam nañ ko ba jamono bi ko yàlla di yónni xam nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara réeru fii mu nekk rasulan kariman wala sax nga ni xam nañ lu gën a rëy loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo doon comparé yonent bi ak yeneen yonent yi nga fekk yonent bi dong mooy ma royukaay bu mat bi moom dong lañ mën a toppandoo histoire am jëlal yonent yàlla Moussa nga gis Moussa laa naarifu say an qat an tufulati wa sababihi kan ma may wax Moussa fu mu juddoo bi mu nekkee xale nekk liir fu mu jaar ba jamono ji ko yàlla di yónni doo ko fekk ci téere yi waaye yonent léegi mun nañ laa wax woy juróom bu góor balaa yonent judd fu mu tukki woon foofu mu tukki woon lu mu fa doon wut xam nga yonent balaa muy judd ñaari weer ci biiru yaayo après papam dafa faatu fan la faatoo madinatu munawar mu yasrib balaa muy tudd madinatu munawar fan ci ay xeet yu tudd banu najaar parce que dafa tukki woon mu dem feebar fa daat fay faatu bàyyi amina ginnaawam abdallah bàyyi amina ginnaaw amina nekk jigéenu wérul tollu ci ñaari weer yonent yàlla Moussa nag kenn mun laa nettali moom fu mu jaar ba juddu nekku xaleem nekku waxambaaneem ba jamono ji ko yàlla di yónni kenn mun la ko nettali wala jamono ji mu doon dund balaa yàlla di ko yónni wala naarifu shay'an qalilan min xayaati baada nubuwa li ñu xam ci moom rek mooy tuuti jamono bi ko yàlla yónnee alxuraan daal di koy nettali isa alayhi salaam kazalik li ñu xam ci moom mooy mu nekk xale injil yi daal di koy nettali mooy évangile yi yi nga xam ne tey ñoo fi nekk li ñu ci wax mooy duggoon na ci xaykalu juif yi seen jaamukaay yàlla yi discuter fa ak ñoom waaye isa léppam mun ñu koo xam lu dul lenn tuuti rek luñ ci alxuraan ñamal tuuti ci dundam kon nga gis ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moom mbooleem dundam boo koy càmbar li ci tuuti ak li ci mag ba muy nekk yonent balaa muy nekk yonent waxuma la dara waaye mbokk yonent bi ni muy lekke sax dañ ñu koo jàngal yonent ni muy lekkee dañ ko jàngal jullit yi pour ñuy lekke noonu yonent ni muy lekke sax dañ ñu ko jàngal da ngay dégg ulama u siira ñu ne yonent bu daan lekk ñetti baaraam lay lekkee ah waaye ma ne yonent bi saa salaam qiyaamihi wa qu'uudihi sax dañ ñu koo jàngal ni mu doon taxawee sax dañ ñu koo jàngal mais ni mu doon toogee sax dañ ñu koo jàngal yéreem yi mu doon sol sax dañ ñoo jàngal yéen yére la yonent doon sol melokaanam sax ni mu meloon gaa yi dañoo bind yonent nan la meloon nga dem ci téere yi ñu ne la xonqul coy weexul tàll njoolul ba ci kaw gàtt ba mu ëpp pataawul dafa diggu doomu am na benn téere bu tudd annabiyu ka annaka taraahu soo demee foofu da nga yéemu daf lay jàngal yonent ba nga xam ne yaa ngi nii di ko gis mu ngi nii toog annabiyu ka annaka taraahu noonu la téere bi tudd waaye man yonent sallallahu alayhi wa sallam wa hayatihi jëmmam nu mu doon waxee sax dañ ñu ko jàngal noonu nu mu doon waxee xam nga tey dangay gis benn benn waaye nitu diine la bu ñëwee toog di wax ak nit ñi dañ koy jottalil mu yox waa ji di yuuxu ci kaw waaye yonent kan ma ko doon jottalil wax leen ma kan la amuloon ko doon jottalil bu daan wax kàddu gi day jot kenn daawu ko jottalil moo daan taxaw wax su daan waaraatee kàddu gi day kawe ba di xonq coy mu mel ne benn commandant bu nekk ci kanamu soldat yi di leen yuuxu noonu la yonent meloon waaye ma ni wa muamalaat yi ay jëflanteem dem ak dikk li mu doon jëflanteeg nit ñi sax dañ ñu koo jàngal waaye ma ni mbokk yi moom yonent ay sekkereem sax dañ ñu koo jàngal waaye ni mu doon jaamoo yàlla dañu koo jàngal ni mu doon jullee dañu ko jàngal ay day dégg léegi benn tey ñu ne la sifatu salaatu nabi melokaan bi yonent bi doon jullee bàyyiwuñ leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee woon ak sahaaba yi sax dañu ko jàngal muhammadu rasulullah wallazina amanu maahu ashiddaau ala alkuffar waaye ruhamaau baynahum taraahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min allah wa simahum fi wujuhi min asri sujud te kat zalika masaluhum fi tawrat wa masaluhum fi injil bàyyiwul lenn lépp la ñu jàngal li ci rëy jàngal nañ ñu ko li ci ndaw jàngal nañ ñu ko mboolem riwaayet ñëw na di ko wax di ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kawaram sax ak weexaayam sikkim bi lépp lañ ñu jàngal ni mu tolloon ñaareel ñetteel bi inna sirata rasul taxki siratul insaan akramahu llahu bir risala histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nettali ab julit ni moom doomu aadama la woon bu mat bu tedd bu baax bu yiw bu sell boo jàngee histoire yonent nga gis nit ku sell ngi nii nga gis nit ku baax a ngi nii nga gis nit ku tabee ngi nii nga gis nit ku dëggoo ngi nii nga gis nit ku tedd a ngi nii yonent sallallahu alayhi wa sallam doo jàng mukk histoire yonent nga jël keneen di ko teg ci kaw yonent am na benn waaye bu bind benn téere bu tudd alxaaliduuna mia dafa jël àdduna bi ba mu tàmbalee ba fi mu yem ñi ñëwoon ci àdduna bëgg a defar àdduna moo xam yonent lañ moo xam ay savant lañ moo xam ay philosophe lañ moo xam ay nit ñu amoon doole lañu woon pouvoir bëggoon gouverner àdduna azamuhum muhammad ki ci gën a màgg mooy muhammad yonentam moom mu jël troisième li gën a yéeme mooy taalibe yonentam moo raw yonentam Paul moo raw Jésus Paul mooy numéro deux xala loolu xam nga ne loolu moom lu doy waar la lu yéemee ngoo nee na yonent saa salaam dundam nekkuloon ay léeboon ak lëppoon xam nga tey dund yu bare bari même fii Sénégal da ngay gis fii yu ñuy nettali yu bare bare bari naan ay nit def nañ ko ay xuraafaat la dara amu ci ngeen xam loolu ay caaxaan kese la yenn yi ci am sax ay jinn ay ñu ñooñu ay jinn la ñoroon waaw am maa dund yonent dafa leer nañ ndax yonent moom jéemul woon nekk nit koo xam ne day wane ay kiraamaat ay mujiza suñu ne nii muy dox ci ngelaw li wala mu jékki-jékki rek kiraaf yi di tegu muy naan ceeb di tegu muy lekk te kenn du ko togg non da daan dem marché jënd ba pare yenu ko nit dab ko bëgg a jël mu ne ko bàyyil sama yëf borom yëf moo war a yenu yëfam mu ñëw ci kër gi yenn saa yi ñu fekk ko muy bale yenn saa yi ñu gis ko muy dëbb yenn saa yi ñu gis ko muy raxas dàllam yenn saa yi ñu gis ko muy fóot yéreem yenn saa yi ñu gis ko mu toog di raxas boppam yenn saa yi ñu fekk mu toog ak soxla yi di kaf di waxtaan di ree gis nga de yoon loolu loon jàngale jàngalewul rek ne man dama doon naaw kaw asamaan kat démb maag yàlla ñoo nekkandoo woon maag Jibril ñoo reerandoo bi Mikaayil léegi la fi jóge téléphoné naa ko yéen di jàngalewul loolu loolu jàngalewul loolu loolu xamul loolu moom li doomu aadama yi doon dundee naturellement noonu la doon dundee te wallaay moo raw ñëpp moo raw ñëpp te noonu la doon dundee mais da ngay jàng ñeneen ñi seen histoire yi nga gis ay caaxaan yoo xam ne du jeex ngir bëgg rek ñu teg leen ci kaw xam nga waa joo xam ne dafa kawe ba pare moom soxlaatul ñu koy jëm a yëkkati parce que xam na ne moom dafa kawe mais kuy jëm a kawe kawelu nag kooku mooy dugg ci lu mënul gis nga waa ju jëm a njool njool mu ñëw bëgg a yurlu daa gàtt kooku lu muy def pour mu gis day tegalee birig tegalee sées uti seel bëgg a gis yonte nag moom dafa judd rek yàlla teg ko ci kaw mu gën a kawe ñëpp moo tax aajowul ñu koy yëkkati ñeneen ñi nag dañoo bëgg ku leen gis moo tax wax yu nekk wax nañ ko jëf yu nekk jëf nañ ko lu nekk jëm nañ ci dugal nit ñi moo tax seeni woote daal di daal di daal di ëpp loxo xoola yonent at yi mu woote yëpp yoroon na cent vingt quatre mille sahaaba mais doo dégg mu kenn débordé na ko Muhammad antal ilaa mukk jàngoo ci siira benn sahaaba juum na yonent yow yàlla nga parce que daf leen a maîtriser gën a màgg mooy Muhammad yonentam moom mu jël troisième li gën a yéeme mooy taalibe yonentam moo raw yonentam Paul moo raw Jésus Paul mooy numéro deux wala loolu xam nga ne loolu moom lu doy waar la hein lu yéemee ngoo nee na yonent saa salaam dundam nekkuloon ay léeboon ak lëppoon xam nga tey dund yu bare bari même fii Sénégal da ngay gis fii yu ñuy nettali yu bare bare bari naan ay nit def nañ ko ay xuraafaat la dara amu ci ngeen xam loolu ay caaxaan kese la yenn yi ci am sax ay jinn ay ñu ñooñu ay jinn la ñoroon waaw am maa dund yonent dafa leer nañ ndax yonent moom jéemul woon nekk nit koo xam ne day wane ay kiraamaat ay mu'jiza suñu nee nii muy dox ci ngelaw li wala mu jékki-jékki rek karaaf yi di tegu muy naan ceeb di tegu muy lekk te kenn du ko togg non da daan dem marché jënd ba pare yenu ko nit dab ko bëgg a jël mu ne ko bàyyil sama yëf borom yëf moo war a yenu yëfam mu ñëw ci kër gi yenn saa yi ñu fekk ko muy bale yenn saa yi ñu gis ko muy dëbb yenn saa yi ñu gis ko muy raxas dàllam yenn saa yi ñu gis ko muy fóot yéreem yenn saa yi ñu gis ko mu toog di raxas boppam yenn saa yi ñu fekk mu toog ak soxna yi di kaf di waxtaan di ree gis nga de yoon loolu loon jàngale jàngalewul rek ne man dama doon naaw kaw asamaan kat démb maag yàlla ñoo nekkandoo woon maag jibril ñoo reerandoo bi mikaayil léegi la fi jóge téléphoné naa ko yéen di jàngalewul loolu loolu jàngalewul loolu xamul loolu moom ni doomu aadama yi doon dundee naturellement noonu la doon dundee te wallaahi moo raw ñëpp moo raw ñëpp te noonu la doon dundee mais da ngay jàng ñeneen seen histoire yi nga gis ay caaxaan yoo xam ne du jeex ngir bëgg rek ñu teg leen ci kaw xam nga waa joo xam ne dafa kawe ba pare moom soxlaatul ñu koy jéem a yëkkati parce que xam na ne moom dafa kawe mais kuy jéem a kawe kawelu nag kooku mooy dugg ci lu munul gis nga waa ju jéem a njool njool mu ñëw bëgg a yurlu daa gàtt kooku lu muy def pour mu gis day tegalee birig tegalee sées uti sel bëgg a gis yont nag moom dafa judd rek yàlla teg ko ci kaw mu gën a kawe ñëpp moo tax aajowul ñu koy yëkkati ñeneen ñi nag dañoo bëgg ku leen gis moo tax wax yu nekk wax nañ ko jëf yu nekk jëf nañ ko lu nekk jëm nañ ci dugal nit ñi moo tax seeni woote daal di daal di daal di ëpp loxo xoolal yonent at yi mu woote yëpp yoroon na cent vingt quatre mille saxaaba mais doo dégg mu kenn débordé na ko Muhammad antal ilaa mukk jàngoo ci siira benn saxaaba juum na yonent yow yàlla nga parce que daf leen a maîtriser wanu leen lenn lu dul man nit laa yàllaa ma yónni ci yéen ma nekk benn yonent bu ñëw pour yar leen jàngal leen ku bëgg a ëppal mu teg la mu delloo la sa place même am na benn groupe bu ñëwoon di ko bëgg a jay anta sayyiduna wa na mu ne eh innama ana abdun fa qulu abdullahi wa rasul da leen doon del delloo di leen yaraat di leen corriger loolu tax sax ñenn ñi naan loolu tax kenn warta wax sayyiduna muhammad non si dañ ko war a wax parce que ñee daf leen a delloo woon rek ndax moom moo ne ana sayyidu walad nu aadam maay sangu mbindeef yépp liwaaul hamdi bi yadi ëllëg maa yor drapeau bi yowmal qiyaama drapeau bi maa koy yor kon moom ma ko wax mais ñee dañoo ñëwoon bu ko jay mu freiné leen lu mu wax bu leen ma jay man jaamu yàlla laa yonentab yàlla laa wax leen ma jaamu yàlla yonent yàlla fa qulu abdullahi wa rasuluhu moo tax gis nga place yi tedd yépp ci alquran yàlla bu koy woo abd la koy woowee subhaanallazi asra bi abdihi waxul muhammad pourtant muhammad la mais bi abdihi tabaraka allazi anzala alfurqaana ala abdihi pourtant muhammad la ara ayta allazi yanha abdan pourtant muhammad la wa innahu lamma qaama abdullahi place yépp yàlla abd comme baat boobu la gën a bëgg abd loolu tax mu ne xayrul asmaai maa ubida aw xamid tur yi gën a baax tur yi mooy tur bu tudd abdullah wala abdurahman gis nga ñëwul pour wax jay di di jayu di jayu boppam di jayu boppam naan man la de maa ngi nii xool leen ma déedéet waaw même aljanna sax daaw ko assureel gaa yi mu àndaloon xoolal muhammad doomam ji mu jur la njëkk a woo yaa fatimatu bintu muhammadin salni min maali ma shiti fa inni laa ugni anki min allahi shay sama alal laaj ma lépp loo soxla ma jox la mais aljanna mënuma la koo assuréel kon ci yu ndawam ak yu magam buñ doon tollale tey histoire u Isa li nga gis mbaa Bouddha ak ñi jaamu ay xërëm di nga gis ñoo ñëpp ñi leen doon jaamu dañoo ëppal tey Isa am na ñu ne yàlla la dem ba ne yàlla la yàlla moo ñëw di leen weddi wa laqad kafara alladina qaalu inna allaha saalisu salaasa même isa da leen a weddi balaa muy dee falamma ahassa isa minhumul kufra qaala man ansaariya ila allah ba isa sentiré ne gaa yi ko topp am na ci ay yéefér la leen boycotté daal ne ku may dimbali ñu dem ci yàlla ah ñenn ñi ne isa yàlla la ñenn ñi mooy doomu yàlla ñenn ñi sax dem doon ne useyru doomu yàlla la ñenn ñi sax ay mbindeef dem ba ne nahnu abnaullah wa ahibbaahu ñu ne ñoom ay doomu yàlla lañ ñoom ñooy peuple élu muy juif yi banu israil waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam ci comportement am ni mu doon dund ak société bi ak gaa yi ko toppoon musta wootewu ak yàlla musta wo musta wootewu musta wootewu mbir mu rëy te pourtant mooy xaatamul ambiya musta wootewu benn daraja musta wax maay nàngam te ëllëg yowmal xiyaam moom dong mooy ramm bu leen fàtte ne danañ sonni ëllëg ñu daw dem ci nuux mënul ñu daw dem ci Moussa mënul ñu daw dem ci Ibrahima mënul ñu dem ci Isa du mën ci Muhammad lañ jëm mu ne xaar leen ma ma ñëw mu ñëw sujjóot kanam yàlla yàlla ne ko irfa rasaka wasal tuta wasfa tusafa mu ne yàlla ummati ummati mais bàkkoowu ko keroog ba muy ràmm naan ummati mu noon naa wax Fatima mu noon naa wax ala bayti yi yow sama borom sama waa kër kat nañ ñëw ana Fatima ana Ousseynou ana Hassan ana Ali jege si leen déedéet waaye dane ummati sama xeet yàlla sama xeet laa bëgg coono gi mu jeex ci ñoom ñu dugg àjjana kon dund yonent sallallahu alayhi wa sallam dana des nekk misaal nekk modèle ci mboolem doomu aadama bu bëgg a baax ci kaw suuf képp ku bëgg a dund dund gu texe képp ku bëgg a tedd ci boppam tedd ci njabootam tedd ci réewam dund yonent sallallahu alayhi wa sallam dina nekk ci yow benn modèle benn royukaay benn seetu boo xam ne chaque jour suba ak ngoon da ngaa war a taxaw di ko xool ndax dara manqué wu ci lépp mat ci lépp nag looloo tax sunu borom subhanahu wa taala dinu woo ci alquran guddi ak bëccëg ginnaaw ba ñu xamee ne dund yonent bi mooy nekk royukaay ci waaju bëgg a baax waa ju bëgg a defar waa ju bëgg a nekk njiit njiit bu maandu njiit bu jub njiit boo xamante ne ñëpp a yem ci yow jullit boo xam ne dafa bëgg a baax bëgg a dund bëgg a yemale doomu aadama yëpp ci kanamam yàlla nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmil axir sur ahzab aya 21 yàlla mu ne dina leen dina doy ci yéen bindee fii ngeen am benn royukaay bu rafet benn modèle bu rafet boo xamante ne di ngeen koy roy yéen ñi nga xam ne da ngeen a yaakaar yàlla yaakaar àllaaxira ñeenteel mbokk yi histoire yeneen sallallahu alayhi wa sallam dafa matale dara manqué wu ci lépp a mat lépp a mat ndax daf ñuy won histoire boo xam ne ndaw ashabul amin al mustaqim qabla an yukarrimahu llahu bi risala daf ñuy wan histoire ndaw loo xam ne dafa baax balaa yàlla di ko yónni yonent balaa yàlla di ko yónni nu mu tuddoon màkka yéen laay laaj saal bi ah al amin te boobu yàlla ñëwagul boobu xamagul lan mooy yàlla te mu tudd al amin waa màkk bu ñuy denc moom lañ koy moom la ñuy jox lu mu wax ñu ne dëgg la ku ko gis bëgg mu nekk sa jëkkër bu dee jigéen la paa bu ko gis bëgg mu nekk sa taaw mère bu ko gis bëgg mu nekk sa caat maam ju ko gis bëgg mu nekk sa sët xale bu gis kii bëgg mu nekk sa frère te jamono yooyu yàlla ñëwagul yéen ngi fàttaliku histoire kaaba gi bi kaaba gi daanoo taw bi daaneel ko ñu tabax kaaba gi ba pare xeet yi di xeex kan mooy tegaat xajaratul aswad ci palaasam lan lañ wax ñu ne nañ toog ku njëkk dugg ci kaaba gi moo ñuy àtti ñu jékki-jékki rek gis ngand mi di ñëw ñu ne jaa al amin muhammad a ngoog mu ñëw jël benn sër lal ko ci digg bi jël xeer bi teg ci daan ne ñeenti giir ñoo fi nekk ñeenti famille famille bu nekk na tànn benn waay famille bu nekk tànn kenn mu ne kenn ku nekk jàppal ci benn cat ñu jàpp ci cat ba ci ruqu kaaba gi mu daal di teggi xeer bi teg ko jàmm ne ñooy ñëpp dem ñibbi xeex amul jamono yooyu yàlla ñëwul woon de nekk gu rasul moo tax yonent nekk royukaay ak a neexoon tey ñuy roy rappeurs yi rappeurs yi ñuy roy rappeurs yi ñuy roy Bob Marley ñii di roy Kumba Gawlo Seck di Zulu ñii di roy kenn ku nekk ut sa benn waay takk fotom sa dënn wala nga takk ko sa kaw néeg soo xëyee jàkkaarloo moom suba foon ko ñetti yoon ak nekkoon nga roy Muhammad ndax moom la la yàlla royloo xoolal tey ay doomu aadama di roy tupak koo xam ne amul baay xamul baayam doomu njaaloo la ci kaso lañ ko juree ci kaso nga gis fii kuy jooy Sénégal ngir tupak di ci xeex subhanallah ndawi Sénégal dañ leen di royloo birima birima dajale leen ci ab estaat naan leen birima ñuy jooy ndeysaan ñoom ñëpp ñuy jooy aka neexoon ñu ne leen muhammad aka neexoon ñu ne leen yéen yaa shababu muhammad aka neexoon ñu wax leen loolu mbokk yi histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa matale def ñuy nettali histoire ndaw loo xam ne ndaw lu jub xoj ju wóor jamono jooju muy jub di wóor yàlla ñëwagul woon daf ñuy nettali histoire wootekat boo xam ne mboolem moyens yi utiliser na ko pour wooteem réussir mboolem moyens yi Muhammad utiliser na ko pour woote bi ko yàlla yónni tas ci àdduna yulli na coono bu nekk dóor nañ ko ndeysaan rey nañ ko exilé nañ ko génne nañ ko dëkk yóbbu ko dëkk ah fase ay doomam rey ay saxaabaam dam na bëñam lépp dem sax ba proposé ko ne ko kaa ñu def la benn gouverneur kaa ñu def la benn buur mbaa kaa ñu def la benn waay boo xam ne yow yaay sunu kilifa wala ñu takkal la jigéen ji gën a rafet wala ñu dajale sunu alal yëpp jox la alal ba nga ëppale ñëpp waaye nga dimbali ñu nga noppi lu mu wax wallahi la wadau sams fi yamini wal qamar ala yasaari bu ngeen jëloon weer teg ko sama ndeyjoor loxo ndeyjoor ngeen jël jant bi teg sama loxo càmmoñ ñaar yëpp di ma lakk diisal ma mu ne lii may wax duma ko bàyyi lu dul yàlla def li ko neex kon dund yonent sallallahu alayhi wa sallam dafay jàngal wootekat bi nga xam ne day woote ci diine di ko wan yonent saa sallam effort bi mu def ak coono gi mu yulli li mu dépassé ci ay waxtoom ak deretam ak léppam taam pour kooku yëg ne am na royukaay bu rafet rafet rafet rafet waaye dund yonent daf ñuy won dund njiitu réew président de la république bu jiite réew def kenoy réew ma mu nekk maandute ak ragal yàlla président de la république boo xam ne amuloon ay garde corps fu ko neexoon mu dugg fu ko neex mu toog ku ko seet si doo ñaan audience te gars yi dañuy jóge fu nekk di ko seet si te amul ñaan audience boo ñëwee kenn du la fuye kenn du la loo indaale xoolal tey am na njiitu lislaam yoo xam ne tey ku leen bëggoon gis foog nga sol daal yu ñuul pantalon bu ñuul chemise bu ñuul karawaat bu ñuul veste bu ñuul verre yu ñuul sac diplomate bu ñuul kat-kat bu ñuul ñu doog laa nga doog nga doog nga doog am audience waaye Muhammad fu doomu aadama jóge woon ci kaw suuf da koy da koy gis benn arab mu ngi nettali bi yonent jógee Màkka ci ñëw Medine muy xool si ndax dëgg la yàllaa ko yónni mais bi mu nee tëll gis gaa yi toog mu ne fa lammastabantul wajha araftu anna al wajha laysa bi wajhi kazzab bi ma ne jàkk gaa yi rek ma gis waa ji kanam gi may wóor na ma ne kii kanamam gi du kanamu fenkat kii lu mu wax dëgg la kanam gi rek la waa ji xool mu ne araftu anna al wajha laysa bi wajhi kazzab mbokk yi histoire yonent daf ñuy wan histoire njiitu réew boo xam ne dafa jiite ay nit jiite ga mu jiite réew ma mu teg ko ci maandu te ak ragal yàlla muy aar réew mi moom yonent bi ci sellal ak dëggu ba réew ma réussir comme ni mu ñuy nettalee wala dund yonent lépp lay jàngale li tax yeneen yonent yi kenn mënu leen a roy ku mel ne Isa jullit mënu ko roy xam ngeen lu tax ah ndax Isa amoon na doom yu mu doon yar laaj bu may laaj la amul woon ndax Isa amoon na jabar amul woon kon munoo ko roy yow jullit parce que da nga war a am jabar te da nga war a xool sa jabar nooy dundeek moom moo tax yonent moo lay jàngal nooy dundeek sa jabar parce que yonent doon dund ak jabaram Isa amu ko Isa amul doom. yonent dafa yoroon ay doom di leen yar yor sax ay sët di leen yar moo tax nga mun a xool ci yonent ni jëkkër di dunde ak jabar waaye ni papa di dundeek doom waaye ni maam di dundeek sët mu nekk royukaay noonu yonent defoon ak soxnaam nga def ko ak sa soxna noonu yonent defoon ak doomam yi nga def ko ak sa doom noonu yonent defoon ak sëtam yi nga def ko ak say sët boo demee ci Isaa mënoo koo roy ci loolu nga ñëw ci yonent yàlla Nuux mënoo koo roy lu tax mun a ko roy parce que nekkul woon raisu dawla nekkul woon président de la république ban état la nuux jiite woon amul fa ma amanahu illa qalilan matul état yoon na dafa yoroon état madinatul munawwar di ko gérer mboolem yonent yi di nga gis ne am na côté bu ñu leen mënul roy mais yonent moom loo ñëw rek wallahi da nga gis ne mu sell nga mun ko cee roy mboolem nag lépp nag loo xalaat rek lépp moo tax Hitler danaan jéem a toppandoo yonent mu ne benn waay laa gis benn waay laa gis moom laa dégg ay soldaaram utalu leen tëni te mboolem état yi seeni soldaar utal lañ leen tëni utal leen budget bu ñuy lekk utal leen camp utal leen arme utal di leen entraîner guddi ak bëccëg duñu génn mu ne Muhammad dong laa gis ay soldaaram utalu leen camp utalu leen budget utalu leen tëni utalu leen arme te bu ne hayya alal jihaad ñëpp toog ci ginnaawam moo tax mu ko doon jéem a toppandoo Muhammad dong la xeex doon jot Bilaal yëg kaw minbar daan ne allahu akbar allahu akbar ñëpp xool seen montre de heure julli ñu ne am na lu xew ñu ñëw ñëpp toog mu ne yàlla joxe na ndigal nee na tey bu kenn yendu ci dëkk bi jël leen jaas yi mu jiitu gaa yi topp ci ginnaaw te kenn du deltu ginnaaw moom dong histoire yonent bi mbokk yi daf ñuy won dafa nekk royukaay ci xale bu góor bu war a nekk baay bu war a nekk borom kër histoire yonent bi di la jàngal nooy nan ngay nekkee ak say doom nan ngay nekkee ak say soxna yaay ay sa moonu nettali ni yonent bi nekkoon ak ñoom ndax yéen dafa nekkoon benn waay joo xam ne tey am na yenn kilifa diine yoo xam ne seeni soxna kenn xamu ko doo ko gis sama ànd ak soxnaam ci otoom moom rek fees dal ginnaaw gi waaye yonante ndeysaan danaan toog yaay Aysa moo nu nettali yaay Aysa nee na yonante daan toog di waxtaan ak ñun di waxtaan ak ñun di kaf di kaf mais bu julli jotee day mel ne xamuñu jàngeen sax ci histoire ñu ne yonent benn bis doon na ànd ak yaay Aysa di daw jàngeen sax ci histoire ñu ne yonent danaan sangondoo ak soxna yi yenn saa yi di sangondoo ak ñoom janaaba ci biir ci biir ci biir saal ci biir néeg ñu sangondoo ci toilette yi xoolal kii borom kër ak jabar ak yonent li mu toll personnalité bi mu am mais terewul muy jàngal jullit yi nit ki nu mu war a mel ak soxnaam ndax dangaa war a am yenn pouvoir yi rek wàcc di ñàndal di xulli bët ah non mais yoon di jàngal jullit bi naka la war a mel ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam waaye histoire yoon day jàngal bàyyi nu mu war a nekk ak doom yoon daa nekk ci kaw minbar di xutba jàng ngeen ko mu seen Ousseynou ak Assane bi ñëw mu wàcc minbar bi daal di leen jël yéegaat ne inna maa amwaalukum wa awlaadukum fitna yenn saa yi day sujjóot xale yi ñëw war ci kawam ci julli ba yenn saxaaba yi yaakaar ne siggi nañu siggi xoolal ko toll ne Muhammad ay nit di war ci kawam ndeysaan kii mooy royukaay ci mbooleem wàll yi waaye yan dañuy jàngal jëflante bu rafet diggante ñaari nit husnul muamala diggante ñaari nit ñuy jëflante naka lañ war a jëflante xala alquran sa wax ne laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala an laa taadilu idilu huwa aqrabu li taqwa bañ ay nit sax bu mu bañ nga bañ a maandu même bu ñu dul ay julit maandul ragalal yàlla ci ñoom moom yonente sax mu ne dëkkandoo ñett la dëkkandoo boo yoral ñetti àq dëkkandoo boo yoral ñaari àq dëkkandoo boo yoral benn àq ñu ne ko kooku mooy kan mu ne dëkkandoo bi dul jullit te ngeen bokk dëkk bi yoral nga ko àq dëkk bi respecté ko xala yonent ndax jëflanteem bu rafet bu mu doon jëflanteeg ay nit waxuma la sax muy jëflanteeg ay doomu aadama ay jullit mais ñi dul jullit sax da doon jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet waaye yonent mooy royukaay mbokk yi ci diggante warugar yi nga xam ne moo jaar diggante doomu aadama yi alxuquq wal waajibaat li kulli min azawj wa zawjayn wal awlaad yonent mooy royukaay ci roy gu ñu ko war a roy góor président de la république nit ku am maqaama ab kàttan koo xam ne dafa jox ay soxnaam seeni droit ba mu mat sëkk mu jox ay doomam seeni droit ba mu mat sëkk xool yonent ci feebaram bu mujj ngir wane na ne joxe na joxe na ay droit ba mu mat dafa feebar waaye dañ koy jàpp ci mbagg yi benn waay jàpp fii benn waay jàpp fii ñu ñëw di ko indi ci biir néeg bu mu war a fanaan muy joxe ayam muy joxe ay ñu koy def noonu di ko def noonu ba ci yàgg mu daal di sonn ni ñu koy jàppoo mu dajale soxna yi ne leen sonn naa dama bëgg yéen ñëpp ngeen xool kenn ku ngeen d'accord ma nekk néegam ñu ne ko may nañ Aïcha nekkal néegu Aïcha xool dañ ko daan jàppoo par guddi di ko yóbbu muy joxe ay muy fanaan wallaahi ngir rek joxe àq yi Ali ak Fatima xeex nañ ci seen kër yonant woo leen di leen atte ban atte la atte tey su ma mayoon kenn sama doom bu jigéen xale bi ñëw dëbb ba loxo yi wow ko Fatima dafa dëbboon ba loxo yi wow Fatima nii la doon liggéey kër Ali loxo ndeyjoor bi da daan dëbb loxo gauche bi yor Ousseyni di ko nàmpal gémmiñ gi di tudd yàlla noonu la doon liggéey bu xëyee suba bii day dëbb bii yor liir bi gémmiñ gi di tudd yàlla waaw moom noonu la meloon mu dëbb ba loxoy wow sonn mu ñëw ne papa dama bëgg jaam yi nekk ci kër gi nga jox ma ci kenn mu dimbali ma yoon na ko demal boo jullee booy tëdd nga def subhanallah fanweer ak ñett alhamdulilah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett loolu moo gën jaam yonent boo ali ne ko ali yow yaa yor liggéey ci biti di indi Fatima yow yaa yor liggéey biir kër gi doomu yonent doomu yonent ngeen def ne tey ku takkoon doomu laay wadde di dina dëbb wile ma dina dëbb waaw du dëbb de du dëbb du dëbb doomu Muhammad moom da doon dëbb ba loxoy wow pourtant bu neexoon Muhammad du dëbb de bu ne woon jigéen ñi na fukki jigéen dem kër Fatima dimbali ko Fatima day neem rek di fuddanu ndeysaan tàllal tànk yi ñu koy bës naan kii sérif la allahu akbar sérif di bës tànk yi comme li am tey doomu diw la di ko bës ndeysaan di ko indi yére yi rafet muy sol rek di muur ndeysaan toog lekk yi di di ñor ndox yi di sedd muy naan waaye Fatima doodoo dafa dëbb ba loxoy wow loxoy wow kon yont gis nga li ma noonu yoon dafa maandu woon dafa jàngale nan la doomu aadama yi war a dundee moo tax mu nekk histoire am siiraam nekk siira bu wér kënn bu doomu aadama yi war a roy war a toppandoo waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam siiraam nekk royukaay yi ci yarkat yi nga xam ne dañoo bëgg a yar maas yi ñi nga xam ne dañoo bëgg seen yar réussir seen yar tegu ci kaw yeneen royukaay la pour ñoom ñu yëg ni am nañu roy yarkat bu rafet xoola yonent saa sallam ñi mu yar ñëpp mbokk yi xool leen yonent ñi mu yar ñëpp kan ngeen ci gis su fekkee dagan naa wax ñu ne diw de dëgg-dëgg moom vraiment yaram dafa xaw a des kan la kenn ci saxaaba yonent bi ñu mu yar ñëpp ñu jub xocc képp lañu yaru su fekkoon ne dagan naa wax ki ci gën a tuuti yar suñ ko indi woon tey ci àdduna moo gën waa àdduna yépp yar ñëpp dañu yaru yar jigéen ñi yar góor ñi yar mag ñi yar ndaw ñi ñëpp yonent yar leen yàlla moom ko nettali yàlla moom nettali Muhammad ñi mu yaroon nu nu mel moo tax tey li tax waa àdduna échec mooy dañuy jël yaru tubaab ngeen baal ma de te tubaab du jàngale discipline mais savoir vivre lay jàngale nooy solo nooy lekkee yor fii kii naan tubaab loolu lay jàngale islam nag day jàngale discipline tubaab mooy wax ak papaam léegi ne ko tu mens wala mu wax ak yaayam ne ko dangay fen est-ce que julli dina wax loolu wa qadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyyaa wa bil waalidayni ihsaanan immaa yablughanna indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa wala taqul lahumaa uffin wala tanharhumaa waxfid lahumaa janaaha zilli min ar-rahma allahu akbar xoolal dem ba màgget tubaab bu papaam ak yaayam màggete nu mu koy def da ko yóbbu maison benn kër gu tudd maison dégguma ko de retraite nu mu koy def moom mu ñëw toog ci kër gi quoi bu paa bi dafa bëri wax ak mère bi dañu màgget tuuti tuuti tuuti tuuti ndeysaan islam moom ne la sa papa ak sa yaay bi ñu demee ba màgget waxfid lahuma janaaxa zilli min arrahma wàcceel say mbagg toroxlul bu leen wax kàddu gu ñaaw bul yëkkati say mbagg bul ngandu ngandu lu ci ñoom bu leen ŋàññ bu leen gëdd wala islam moo tax yoon lu alquran la doon yare nit ñi kaana xuluquhul quran jikkoom moo doon quran jikko boobu la jàngal saxaaba yi jikko yooyu la leen jàngal kooku wute naag tubaab mbokk yi wute naag tubaab tubaab mooy ñëw di njaaloo jullit xamul loolu tubaab mooy naan sàngara màndi di yuuxu ci mbedd yi jullit xamul sàngara jullit xamul lu ñaaw jullit xamul lu bon jullit lu baax rek la war a def lu set lu set jullit yiw la war a def yiw sell ndax lislaam loolu la jàngalee mboolem xoolal lu ñëw war a yàq doom xelu doomu aadama lislaam ne baaxul ñëwal drogue lislaam ne baaxul sàcc alalu jàmbur lislaam ne baaxul jeu hasard islaam ne baaxul lépp luy yàq rek islaam daa ne leen bàyyi leen baaxul yonant tere ko gaa yi yàlla tere ko ñu ne baaxul tubaab mooy ñëw di ko def fen ba falu yooyu dagan na sàcc dagan na njaaloo xoolal njaaloo tey métier la métier jigéen day ñëw léegi ut carte ñu bindal ko ci carte muy cagatu bu police day tëll mu ne nii yooyu caareeg ñu daal di koy bàyyi xool loolu yàlla dina wala taqrabu zina innahu kaana fahisha wa saa sabil kon loolu moo tax dund yonent siira yonent ak yeneen dund yi mënut a nekk benn parce que kii dafa ñëw indi valeur doomu aadama indi yu baax lépp yiw daal di indi ne mu ngi nii ñeneen ñëw indi lu bon daan ne mu ngi nii nga bëgg def lu bon li ba pare bëgg ne naa baax mais mënut a nekk mënut a nekk doomu aadama pour mu baax pour mu baax foog ñu indi ko ci yaru Muhammad ndax yaru Muhammad programme la bu nit di dund te programme bi mu ngi jóge ci borom asamaan ak suuf te borom asamaan ak suuf alaa yaalamu man xalaq xam nga nu mel tubaab bi defar machine bi ba pare di ko yóbbu ci benn dëkk moo xamante ne ñooñu xamuñu machine bi da koy booleeg benn benn notice wala benn catalogue suñ demee ubbi ko ah xool affaire yi kat nii lañ koy defee pour mu baax gis nga yàlla bi mu bindee nit dafa boole nit ak loolu xam nga loolu lan la mooy quran pour doomu aadama war a jag war a baax su ñëwee ci alquran rek ñu xool côté mi lépp ñu ne ko ah lii la jeex na léegi nag lu ngeen xam ci doomu aadama bëgg a dund sans quran